na def ku mën na def sa kër yi ba dee na def sa kër yi ba la jeunesse est la population saint-louisienne elle rek lañ bëgg gis seen président Ousmane Sonko Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko commentaire yi loolu laa bëgg ñu bind yi Sonko Diomaye mooy Sonko commentaire yi leen Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko ba gis Bye, bye. ñu ngi ni à Saint-Louis à 5 heures du matin voilà la population de Saint-Louis ñi nga xam ne dañoo génn massivement pour accueillir ki nga xam ne mooy euh, président Ousmane Sonko man la Azoura Fallou maa ngi lay nuyu bu baax di leen ziar di leen ñaanal jàmm ak salaam gudd fan wéy gën a tay la def 5 heures du matin est sortie en masse. pour accueillir Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye élection yi di leen demee de xëdu voté nangu jubilé

Le président Ousmane Sonko, il va sortir. Le moment à l'autre pour sympathiser avec la jeunesse saint il est là, le président Ousmane Sonko.